Nova, Gold Skin by Siva. Destination Sénégal, agence sénégalaise de promotion touristique. bind lettre testament bi sama loxo vous êtes concerné yo ak parc automobile yow yow wax nii. defal ndànk restaurant immeuble yi. Fred. la sama sama tante moo gaañ. sa ban tante yow yow da nga mi mbokk. biti toj-toj yi dafa doy bêtises yi dafa doy te bu fekkante ne sa waajoo ji ngay wax bëgg na la li mu wax na ñëw ndar ñu maye la. yaay moom dina la ko nëbb man su ma sañoon sama bàyyi doom bii lay seel ndax man moom laa bëgg. Ah, bonjour ah ci liggéey Anne madame Diop Madame Diop Municipal.